Le deuxième adjoint est un homme. Je rappelle que le FSDBJ n'était plus membre de Yewi Askanwi. Mais pour nous, Yewi Askanwi, c'est d'abord un esprit. Parce que personne ne nous fera croire à nous que M. Cheikh Bambedier n'est pas un opposant. Le troisième adjoint se trouve être une femme. C'est le PASTEF,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 tête du grand parti était aussi membre du bureau municipal dans le premier bureau municipal. La, le, la neuvième adjointe, le parti du ministre d'État Habib Sy. Je rappelle que Madame Khadignan Silla faisait partie du premier bureau municipal. Et je rappelle que Monsieur Habib Sy, département de Dakar, en l'occurrence Bassirou Samb.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 La démocratie sénégalaise aurait dû dépasser le stade de chercher à dissoudre un parti politique. Mais je rappelle qu'un parti politique, c'est aussi soumis à des lois et à des règles. La conquête du votre voix, je l'ai dit, je le répète et j'insiste, ils n'auront pas de résultat. Le Sénégal a été et, et restera une république. Ces gens doivent savoir une chose. dans la dignité. dans la sérénité, dans la lucidité. Mais je vais vous dire la mère à l'Assemblée nationale. Quand ces gens qui se disent être nos alliés, du vote pour la réhabilitation de Khalifa Sall pour être candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024, ils ont tous, autant qu'ils sont, ils ont tous boudé la séance.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 Alors, les uns, nous sommes trois, membres fondateurs de la coalition Yewi Askanwi. Je voudrais d'abord commencer par saluer respectueusement mon papa, Serigne Moustapha si di ko jox wàccuwaayam di ko ñaanal yàlla na ko yàlla yokkal sutura ak wér ak wérle interpeller monsieur Khalifa Sall qui est hors du territoire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 Je terminerai mon propos en vous disant que nous, de la coalition Tahaou Sénégal, notre candidat s'appelle M. Khalifa Ababakar Sall. Je rappelle à certains qui veulent aujourd'hui faire croire à une certaine opinion qu'il se peut qu'il y ait une lune de miel, ou bien il se peut qu'il y ait un bourreau axao. Je voulais vous dire une chose. Nous avons été exclus du Parti socialiste depuis maintenant bientôt une décennie.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 Sénégalaises, Sénégalais, main dans la main, épaule contre épaule, marchons vers l'essentiel. Je vous remercie. asalaamaaleykum mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla ñu ngi gërëm mbokk journaliste yi fii ñëw tey fekk si tey suñu point de presse bi point de presse bi nag lu ko waral mooy bureau municipal ou ville de Dakar bu ñu jot installé démb mu am ci mbokk yi ay mbokk yu fi gedd def yëfu xalel ne nag dañuy génn bëgg ñu dëkkaloo ñun fu ñu dëkkul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 moo dogal jox ñu ndigal nañu yenn waa ville de Dakar nu ngeen voté seen bureau municipal jaaduwul respecté wu leen lu ñuy woye parité te ma ne maire de Dakar ñu foog ne ni dafa yor doole gi demeewul noonu man mënuma dàq kenn ci conseil municipal bi mënul nekk awma pouvoir boobu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

joxe décision ne yéen waa Dieuppeul Derklé respecté wu leen parité bi da ngeen di reprendre at bureau bi. Pastef jigéen moo jël premier adjoint kenn mësul dégg waa taxaw xas leen wala saaga leen wala jëm leen dëkkaloo fu ñu dëkkul. deuxième join ñetti yoon la ñu wote pour que suñu camarade Ibrahima Ndiaye mën a jàll. kon nag kan mooy jàmm. am na ñu fi waxoon Khalifa Sall dafa naroon bokk ci élection yi par force.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 comme ci ñoom dafa amoon ñu jàpp ne que du ma leader politique nañ ko déggee noonu man maa ko wax te noonu laa ko waxee maa ngi leen di gërëm leen sant